moo Coquet di Molde ñoomee nag ñoo mujjee dóor Coquet di Molde par la marque de deux buts à un moomee nag dugal na première bi mu def un bon match il continue à nous impressionner kon nag Pape Thiaw trêve international bi di ñëw soxlaa nañ Coquet di Noah Fadiga ci équipe nationale Sénégal même burul dara am nañ problème latéral droite c'est booy bi dafay football latéral droite c'est un latéral monte te day repli défensif défensivement il gère maane boo leen génnee kan ngay dugal c' est problème te booy bi day football excentré di football latéral droite te eh, loolu atu la pour équipe nationale Sénégal nañ ci profité ci li ni mel ah, bañ di ko bàyyi noonu di ko seetaan noonu rek gone gi am na avenir vraiment ci loolu laa gis tey seen club boobee di Gent moom moo dóor eh, kookee di am Molde par la marque de. de bi za 1 mu ngi noonee Djurgard Djurgarden nag moom moo dóor dañ ko dóor Victoria moo ko fekk dóor ko 2 bi za 1 kookee di euh, ba Borak moo dóor 1 euh, bi à 0 Opel loolu nag Europa Conference League ba dinañ ñëw ci Europa League Manchester United ñoom seen Rapid nag euh, SK Rapid moo dóor 1 bi à 0 Noah waaye te kookee di à Irt moo dóor 2 bi à 0 Omo oh, Niang mu ngi doone Galen nag moom Fiorentina mu ko fekk dóor ko 4 buts à Chelsea euh, fekk si kookee ñu naan ko Panayti Neykos dóor ko 4 buts à 1 Chelsea bu ñoom Nicolas Jackson euh, kookee ñu naan ko euh, Jagiellonia moom nag moo dóor 2 ko Petro Kub Celje moom moo dóor 5 buts à 1 kookee di Başakşehir waaye it Larne kookee ñu naan ko mën naa ni Rover moom moo ko dóor 4 buts à 1 looloo résultat match loolee ñu naan ko mën mën naa ni euh, euh, Europa conférence league bi ñu dem ci Europa league bi tamit résultat yi fa jot am man Manchester United ci 3 match Ligue Europa Manchester United 3 nul la ci jot a am il n'avance plus c'est quoi leur problème man dama jàpp ne dañoo dëgg liggéeyu jàmbur Manchester United. kookee di Porto nag moo dóor 2 bi à 0 kookee ñu ko Offenheim Rangers nag dóor 4 bi à 0 kookee di FCSB waaye Tottenham bu ñoom Pape Matar Sarr dóor 1 bi à 0 Al Alza Alkmaar Fenerbahçe nag moom moo dóor 1 bi à 0 mën naa ni. Euh, kooke dafa nul boog un bi partout moo ko Manchester United Fenerbahçe Mourinho ancien clubam la dajaloon muy Manchester United mu doon match boo xam ne c'était très compliqué metti woon na yëngu na mais sauvetage Onana bi moo sauvé kooke di Manchester United lu ko mooy leneen nga doon gisi ji mu ngi noonee kooke di Malmo nag Olympiakos moo ko fekk si dóor ko 1 bi à 0 waaye Athletic Bilbao nag bu ñoom Nico Williams moo mujjee dugal dóor kooke waaye yamalaatuñu foofu euh, Twente Lazio bu ñoom euh, Boulaye Dia ñoom ñoo ko dóor par la marque de de euh, bi à mu doon match yoo xam ne nii jot naa am foofee ca Europa League bi mu ngi noonee Tottenham bu ñoom Pape Matar Sarr ñoom ñoo dóor un bi Lazio bu ñoom mën naa ni kookee ñu naan ko mën naa ni boo xoolee l'équipe boobee ñu naan Boulaye moom it moom moo dóor deux bi à zéro foofu ñoo ci yeneen résultat yi Braga nag mën naa ni bo moo bo Bordeaux moom moo ko dóor deux Galatasaray nag dóor 4 buts à trois kookee ñu naan ELF Chorb bu mu ngi noonee waaye it euh, Ferencvarof moo dóor 1 but à 0 kooki di euh, Francfort moo dóor 1 but à 0 RFS e euh, Tel Aviv mook Real Sociedad moo ko dóor 2 buts à 1 euh, Union Saint-Gilloise nag euh, kookee ñëwaan ko Midtjylland moo ko dóor 1 bi à 0 waaye it PAOK Salonique dafa nu 2 buts partout mook Victorian Plizen ak Karab nag euh, mën naa ni Ajax moo ko fekk si door ko 3 buts à 0 Roma nag dóor 1 but à 0 kookee naan ko Dynamo Kiev résultat match yi foofee ca Ligue Europa bi moom moo nekk noonu ngeen xamee ko noonu muy noonu gars yi képp koo xam ne nii nag abonné go suñu chaîne YouTube abonné bi ngay liker di commenter di partage loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def leen jox xibaar matin midi soir jàmm ci yéen gars yi ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous jaa ngeen jëf.